wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ginnaaw sant yàlla ak julli ci yonantam bu tedd bi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare di leen baalu àq tey baalu àq ñëpp di ñaan yàlla di defal jàmm fu mën a nekk. dellu soot nañ seen jataay bi ñuy wax taxaw seetlu ñu di ko amale seen site bi ñuy wax yi TV Seydina moo nekk ci xarale gi ngi nuyu Baye Modou Dieng Touba 28 Minam Dekko mbokk yi tey taxaw seetlu bi ngi dellu siwaat ci Ousmane Sonko rek. man de wax dëgg yàlla ginnaaw moom kuy wax te waxoo ci moom nit ñi duñ la déglu kuy xalaat te xalaatoo ci moom daanaka sa xalaat day des day desee xóot day doon xalaat bu bu tontu rek kuy yéemu tamit te yéemu ci mbiram yi nga xam ne nag yàlla meneen mbir muy dikk di la yéem dootul amati ndax lii kiimaan la mbirum yàlla la Ousmane songo dañ koo àtte le vingt trois mu benn jigéen boo xamante ni bu ñuy wax aji saar la Ousmane sax wutaloon na ko weneen tur waaye naa ko bàyyee tur boobu rek bañ koo ko tudde waaye li ci gën a yéeme mooy biñ koy àtte ñëwul dafa dem Casamance ñu àtte ko ci ëllëg sa wala dara mu génn mbooloo mi mel ni dañ koo gën a bëgg ñu àtte ko ni verdib bi ñu ngi koy joxe la trente xuma la première la première mu jógee euh, Casamance le vingt six jaar Kolda mbooloo mi mel ni lu xew lu xew mu ñëwati jaar ci Vélingara ma maanaam nga gën a téye yéeme mbooloo mi doo xam lan mooy tax mbooloo moo xam ne naaju tàng baarewu leen ngelaw baarewu leen taw baarewu leen guddi baarewu leen maanaam décision bi na am amul lenn lenn loo xamante ni luy tax nit découragé wala deltu ginnaaw du tëj du rey du dara lu tax mu baare leen ñoom daal seen décision bi ku ci nekk xam na ne xam nañ liñ ci teg ñoom li ci xale yi gàll ak ñii jëw te it mbir mi wax dëgg yàlla dañ cee war a def taxaw seetlu de depuis le vingt trente et maanaam vingt deux mille vingt et ca mars ba ba léegi ma ne leen mbir mu nekk su ñëwee daa am luñ ca war a jànge ak luñ ca war a def taxaw seetlu dañu war a avancer wala dañu war a dikkile ay élection jaar fi yu député ak yu kii mu def ci loo xamante ni lu yéeme la Ousmane Sonko nitam yii ma gis ko topp ko bokk nag nit ñi nga xam ne ñoo toppoon ci yàlla Musaa naa ko yow bu la neexee boo xuusee ñun ñu taxaw déedéet ñu xuusoon ñu kiyoon ñii dannaa ko boo xuusee géej gi ñu ànd ak yow boo xuusoon géej gi ñu ànd ak yow xoolal sëñ bi Casamance ni mu tàngee ay Tamba Tamba gi mu jëm fi mu toll nee na départ na ma nga war a dem Tamba fa la war a fanaan fa la war a noppaloo xoola woykat ba doon wax naa Tamba am na noppalukaay ndekete yoo Ousmane dina fa noppalu ji. mbir mi nag wax dëgg yàlla xalaat jot na ci bu baax a baax a baax a baax bu baax a baax a baax a baax koo xamante nii foo jaar mu mokk rumb yoon wi fu mu jaar fépp daa mokk rumb maanaam li naa foo jaar mu di yoon foo aw mu di njënd maanaam yoon wi mel ni kenn kenn xamul lu mu doon doone lii lan la di nga laaj sa bopp di nga laaj yi tamit Ousmane Sonko di nga laaj mbir mi lan la waaye di nga laaj ñii ko toppi tamit lan la koo xam joxunu la benn dërëm yow yaay joxe sax say cadeau yaay ñenn ñi ay xaalis ñenn ñi ay ay ay soble ay ay bal ay lu yu nekk yu nga xam da ngay gis ñu koy jox ay lem ay yu nekk ñu koy jox ñenn ñi di ngénte di ko tudde du yëg loolu ah xam naa moom bu nu fexee moom ba fexe ba doonut candidat ak fu mu ko mën a fekk fekk fekk laa wax bu joxee siñ ne wooteel leen Mimi Touré Mimi Touré laa wax de bu joxee siñ ne wooteel leen mii Mimi Touré dinañ ko woote te bu boobaa nag Sénégal dina am jéeg boo xamante ni mooy nekk présidence mooy nekk euh, njiitu réew mi ab jéeg bu nekk pale di fuddanu di musóoru di kii bu boobaa mooy jiite Sénégal kon nan bàyyi boroomam mbaxana rek jiite ko rek xam naa daal moom yàlla moom def na ci mbooloo moo xamante ni kenn lii nag moom wax dëgg yàlla ah mbooloo mi mën naa wengal mbaxana de mbooloo mi ngay séen mën naa wengal mbaxana de mën naa yi tamit kaasu attaaya mën na koo daane nit mën nan laa jox kaasu attaaya wala kaasu meew nga yor ko di kat-kati ba far kaas ba daanu di xool mbooloo mi ba far kaas bi daanu waaw ah man de wax dëgg yàlla kiimaan la ci man man de wax dëgg yàlla mbir mi xoolal bi mu fi bàyyee tudd maam bay Niang kenn kenn kuy tuddati Mame Mbaye Niang amul kenn kenn tuddatul Mame Mbaye Niang Mame daa mel ni ku nekk ba noppi mel ni nekkatul kenn ku ko tuddati déggatoo aj saar fi ñu toll kenn tur sax daanaka nit ñi jaaratuñ télévision yi ajjuma bi passé maanaam émission yi nga gën a xam ci guddi gi muy Walfajiri muy TFM ci seen jàkkaarloo muy ndumbelaan muy yeneen télé tele yëpp ci Ousmane songo lañ def site internet yëpp site internet yi moom am nañ liggéey moom moom moom wax dëgg yàlla fan yi ñàkkunu liggéey waaye nag nan ko sant yàlla sante ko Ousmane Sonko ñi ngi tedd ñoom di grâce Ousmane Sonko am na ci ñuy gañe ay million wala ay nangam wala ay junni ay junni junni te Ousmane Sonko tax ñu gan wane naa Ousmane songo dem na fee tisloo dina euh, nuyoo naa ki nit tudd na beñe dugub ci laa gañe li ma gañe amul leneen maanaam liñ koy tudd moom ci turam Ousmane Sonko amul benn bu buñ koy tudd fii nu toll li ñuy tudd Ousmane Sonko li niti Sénégal di tudd Ousmane Sonko amul benn nit buñ koy tudde ba ci waa APR li ñuy tudd Ousmane Sonko tudd ko président bi nga xam ne moo leen di moo leen jël embauché leen di leen fay di leen liggéeyloo di leen defaf tudd nu ko loolu waaw amul wenn waxtu benn waxtu woo xamante ni amati na woo xam ne tudd na Ousmane Sonko amul oh. lii moom sëñ bi ak ñi nga ko waa APR yu toppee guddi bëccëg di wax te ñoom waxtu yàlla biñ leen di falit falu nu leen woon ngir ñu topp usmaan songo falu nu leen woon ngir ñuy wax ci Ousmane Sonko dañ leen a faloon ngir ñu liggéey bu fekkee wax ci Ousmane songo rek moo tax ñu moom lan lan dese loolu moom Sénégalais yépp ko man xale yu ndaw yi sax mën nan Ousmane songo muy jóge Casamance di ñëw dakaar lu ci jar ay garanaat lu ci jar ñu koy san lu ci jar ñu koy kar ak yooyu te yeneen yu itteel yoo xamante ni yu itteele ngi fi yoo xamante ni sëñ bi wax de yàlla demoon ci yooyu moo gën Ousmane fi ñu toll defal nañ ko campagne boo xamante ni deux mille euh, nu mu tuddee maanaam suuru campagne deux mille élection yi jarul muy dem fenn te it gars yi dañ doon wax na président Macky Sall wër na at mi réew mi Sénégal ñetti yoon. Ousmane song fi ñu toll at bi mooy doon at deux mille vingt quatre mooy doon ñetteelu atam président Macky Sall bi mu ko wëree ba noppi pale leen ko nit ñi yóbbu Ousmane mi yaakaar naa bu ko wëree ba noppi ah yàlla daal mën na lu ne moom. ak euh, ñoom li ñuy def tamit biñ leen di falit faluñu leen woon ngir topp Ousmane Sonko waaye faruñu leen woon i tamit falu nu leen wone tamit ngir tontu Ousmane Sonko dañ leen a faloon ngir liggéey waaye dafa mel ni ñoom dañoo juutal yëf yi te boo xoolee Sénégal Mimi Touré laa ko njëkk a dégg deux mille vingt et un mu ne yi xale yi Sénégal boo jëlee téeméer yoo jël juróom-ñaar fukk yi ay xale la xale yi nag ñoo topp Ousmane Sonko mag ñi nga xam ne mënunoo dem ñu toog seeni der ak seeni kuus du te it yi moom sondage yi li mu joxe ci élection yi mooy xale yoo gis maanaam xale yoo gis ñuy dem xamal ne téeméeri xale yoo gis ñuy dem xamal ne xale yoo gis xale yooyu moom Ousmane Sonko loolu moom sondage la maanaam xale yoo gis ñuy toog di waxtaan wala ñuy naan attaay wala ñuy dem xale yooyu xamal ne xale yi nitu Ousmane Sonko la nit waxuma sax ay ay waaye niti Ousmane Sonko la ah man toog rek di xaar rek yàlla moom ginnaaw bis bu nekk mu mu yokkal la dara ci comp yokkal la ci sa mbir a ah, da yàlla ñam naa ko neex na bàyyi naa ko kenn du ko def <laughs> ay mbokk ñi ngi taxaw fii daal di yëg ni rek moom fan yi moom dëgg si yàlla ñu ngi xalam xalaat xalam ci usmaan ak di xalaat di xalaati tamit ne fa yàllay fale ak fa yàllay pexem yàqkat àggut foofu maanaam jamono yi yàlla di xalaatal di di pexeel nit ak di programmeel nit booba nit ki mu ngi nelaw wala nekku fi sax moom kooku nag mënul yàq dara kooku moom mënul yàq dara cooway bari puseere bari pënde yi bari waaye li yàlla namm faaw mu am ñu ñaan yàlla may nu wérug yaram ak wérug diine te yaatal suñu wërsëg may nu mujj ko rafet salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Tanim TV.